waa ni ma gisee face à face bi moom xam naa ne pour dugg fii du yomb waaw du yomb parce que tey lii force de l'ordre yu fi nekk vraiment man jaaxal na ma parce que war nañ ko xam palais présidentiel la ngi fii presse institution yëpp ngi fi donc tey ñëpp di ñëw di seetaan si fii vraiment dañu war a ànd ak fair play ànd ak dal parce que ku convoqué Boy Niang 2 convoqué Balla Gaye 2 xam ne loolu ñaar ñooñu rek ful moo leen di topp ful boobu nag bu ñu ñëw nañu àndi discipline àndi fair play àndi sportif ku si bëgg ñibbi sa kër te doo fanaani da ngay ñëw ànd ak dal yor sa carte d'invitation nga dem toog bu sa mbër waxee nga tàcc ko bu sa adversaire waxee nga tàcc ko loolu la ñuy xar si ñaar ñooñu parce que combat bu doy waar ñoom ñaar la ñuy bëre combat la boo xam ne des na ay deux mois ñëw ñu bëre ko li si war a xew yëpp dafa bari mënuñu ko tënk fii yëpp beneen bi mooy Sa Thiès ak Reug Reug moom la Sénégal yëpp di xaar Sa Thiès Reug mu nekk affiche boo xam ne affiche bu explosive la kii mosul am defet muy Reug Reug moom dafa gëm ne dafa gëm ne dafa gëm ne mooy njëkk daan Reug loolu fan la ko jëlee ak lu tax mu wax loolu loolu la moo jaaxal sénégalais fan la teg ne day daan rëg-rëg gëm-gëm boobu moo jaaxal sénégalais yi rëg-rëg moom daa gëm ne moom képp ku taxaw si wetam amul ku ko mën a téye donc moo tax mu nekk combat boo xam ne Sa Thiès rëg-rëg c' est le meilleur combat de l' année c' est le combat de l' année c' est le choc de l' ku ko tar tardé nga lu rëy parce que rëg-rëg day ñëw ak doole Sa day ñëw ak vitesse d' exécution ak doole combat la boo xam ne ku si gën a pare physiquement ku si gën a gaaw ku si gën a eh, jàppante bi affaire yooyu xam nga sew sewaan yooyu ah loolu bu fa amee non nga gis lu rëy parce que man de man mooy sama komba ñu jëm nag si franc Forza bi nga xam ne tey mun naa wax ne sele le tigr tigre de Fass tey Gris bu ñu ko néew tëgg Forza mooy taxaw Fass ñeme na soxor na violent na lépp bagarreur la remiseur la amul lu lu Forza mu newul Forza tey am na noo xam ne tey waroon na taxaw tey mooy nekk le le meilleur lutteur Sénégal mais gars yee ko ragal gars yi ñemewul jël avance am Franc daan barki dem soq jox leen ma ko Gaston ne ñëw leen Gaston boole leen moo tax tey seen face à face amul bu ko dul daax te seen combat day métti Franc moom tamit musul daanu daa gëm ne moom si ñoom Balla gay 2 la jëm si ñoom Bombardier si ñoom Ama Baldé si ñoom Eumeu Sène moom dafa gëm ne foofu la teg saisam mais pour mu jàll for Forza loolu mooy wax bi nan la koy jàllee soq Marley combat bu boo xam ne moom naqaree pronostic Marley day bëree bëree bëree bëri comme sa pas possible dafa mun a bëre mais nit ñi xamaguñ ko événement yii nag moo ko mun a may sens lii sens na si moom mun bëreem nag da ko war a wane contre soq soq nga xam ne Pikine mu feesal stade arène nationale c'était la première fois le 19 juin 2022 moom ak Franc ñu feesal ko mu jël fa defet waa Pikine dañ ko meree ba nga xam ne bu daane waatee si contre Marley fan la jëm. moo tax combat boobu c'est un mais combat bu neex la li may wax rek en pour terminer na gars yi di cultiver le fair play na gars yi di cultiver la sportivité làmb sport la amul mbër bu dul bëre ba jeexal te doo daanu loolu yàlla may ko kenn amul club de football buy joué 38 journée am 38 victoire loolu yàlla may ko kenn maintenant Arsenal je pense moo ko defoon en Angleterre mais depuis boobu gisaatoo ku ko def donc sport dafa am défaite am victoire am nul am sans verdict nu fan si di xamee noonu na ko mbër yi tamit di waxtaanee seen kii parce que ja làmb dafa laaj ñuy waxtaanee waxu fair play da ngay xool li xaw Iba Mar Diop keroog bu fa moor doom amoon làmb dinañ ko mës a tëj te loolu ñaanuñu ko yàlla ñun ñëpp si làmb la ñuy dund. donc nañu gën ñun sax si di nañu gën di waxtaanee waxu fair play waxu sportivité lamb du guerre làmb du guerre lamb du guerre nañu xam loolu na supporters yi xam loolu Balla Gaye 2 ak ak Modou yi ngay gis ni ay Balla Gaye 2 Boy Niang bu ñu demee ba amay 60 ans ñoom ñooy ànd ñooy toog nii teg 16 chaque jour ma gis ay ay ancienne gloire yu bokk 16 te ñoom ñoo doon bëre te dara ñaaw si non Boy Niang Balla Gaye c'est le boobu moom boobu boobu dafa doy waar parce que kii dafa daanoon rakk ji te Balla Balla mbër la moo xam ne mu combat am ak ñaa Niang mu dee moo ko gënal Boy Niang daan ko moom mu dee moo ko gënal Boy Niang 2 daan ko kon lan lay wax de Boy Niang dootul dugg pi Balla Gaye boobaa dootul dugg Pikine jamais de la vie moo tax combat boobu di koy jaral lu ne Boy Niang 2 moom xam naa dañ ko mës a dee xam naa ne mara boobu moo ko mës ne yow da ngay daan Balla Gaye 2 ërtal ko rek topp ko rek topp ko rek topp ko rek ba mu am ko léegi am na ko. moo tax combat boobu doy na waar yàlla nañ si yàlla yóbboo ak jàmm daal le premier janvier ñuy féliciter le promoteur Gaston Mbengue bi def face à face bi parce que face à xam nga kañ la fi gëj am en 2005 la fi gëj a am diggante Tyson ak Yékini la woon Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux fii lañ ko defee woon en 2005 1er janvier 2006 Yékini daan Yékini daan euh, Yékini daan Tyson Lac euh, Gris Bordeaux doon Lac 1 Lac 1 la woon fii lañ ko defee woon Petit mbay moo ko organisé woon donc 16 ans après ñu andiwaat fii ça veut dire que làmb mu ngi dox mais làmb lu tax kii yu mel nii du ko arbitré dañu ragal violence donc nañu moytu violence mais cadre bi amul koo ko gën a rafet Daniel Sorano demoon na ba suulu ndax Grand Théâtre tey Gaston Mbengue bu amee xaxal andiwaat ko fii ça veut ko mu ngi dekkalaat mu ngi dekkalaat Daniel Sorano parce que Daniel Sorano fii mooy cosaan bi Daniel Sorano fii la lépp xewee artiste Sénégal yi nga gis yëpp fii la ñu luqeekoo de Thione Seck de Baba Maal de Youssou Ndour de ah, Lalo Keba Dramé ñoom na Lam ñoom faatu Guewel ñëpp fii la ñu luqeekoo amul ku luqeekoowul Daniel Sorano Daniel Sorano bi si monument yi war yi yi Sénégal gën a gën a protégé si la bokk no day explosé am na yeneen combat yoo xam ne tudd ma ko sax ay bombardier Tapha Tine am na yeneen ak yeneen am na ay xale yu ndaw am na ay aada Fass Zarko ah am na Siteu Papa Sow novembre ah am na Ada Fass Zarko mu nekk xale xale xale Zarko Ada dafa ñeme Zarko te Ada Fass mbër la moo xam ne ci suufam kenn du ko laal te Zarko dafa da ko daa bëgg suuf te suufu Ada Fass kenn du ko laal laa ilaaha illa Zarko bu juumee ba suuf laala Ada Fass pare na te Zarko loolu rek lay wut mais Zarko bet la c'est une bête bête entraînement la ñeme am fit am doole lu mu tax gis mu taxaw si wetam yaakaar ne moo ko mën moo tax combat boobu bokk na si combat yi ma gën a neex tamit comme ni ma Reug Reug Sa Thiès neexee mais Ada Fass tigre de Fass Ada Fass mooy Mbaye Gueye Ada mooy Tapha Gueye donc Ada Fass nit ñi dañu am yaakaar si moom li may lancer rek mooy combat bi dafa commencé bëri tension commencé bëri coow fu Zarko génnee coow li bëri fu Ada Fass coow li bëri ñu bëgg ko def un Balla gay 2 Modou Lo non attention dal leen supporters yi dal leen boo leen bëggee seen mbër yi gagné ay millions da ngeen di wane fair play pour promoteurs am sañ-sañ ñëw tëgg seen i combat parce que Ada Fass avenir la ku ne avenir nag mooy dafa war a ànd ak fair play te promoteur bu ko organiser du am du am tiitaange après donc daal loolu la ñuy xaar euh, si si affiche boobu Zarko attention da nga gëm ne yaa mun Ada Fass di nga ko gëm bu ñu tëddoon ba yeele ne la Ada Fass la mun da ngay ne xanaa kii dafa dof mun nga ko sax dóor xam naa Zarko mais Ada Fass kenn du laal ay tànkam yaa ngi bëreeg der ki gën a nekk der si làmb ji ngay bëre du la may dara moo tax combat boobu macha allah jërëjëf sama gars yi di remercier site yëpp nag.